dafa am ay paradigme ak prisme yu war a changer. te loolu nguur rek moo ko mën dindi. dindi bi c'est très simple. kilifa ñu ko gën a xam. il faut que tey les service de communication de l'État du Sénégal. en amont et en aval. ñu orienter débat bi. dafa laaj génn ci bureau yi. fekki nit ñi mhm. dafa laaj génn ci bureau yi dem toog ak les directeurs de publication des journaux là de radio et télé mhm. dafa laaj génn ci bureau yi dem toog ak les directeur de programme et coordonnateurs de rédaction de radio et de télé mhm. c'est un efficient à faire pour que ñu wax nit ñi fi bàcc di waxee ñu ne rédacteur en chef journal bi wala directeur de publication sëñ bi il faut ngeen comprendre fi dëkk bi toll dafa laaj saafonte il faut ngeen comprendre fi dëkk bi toll li yàqu daa bëri les intérêts les enjeux là ak karo gars yi fii la Sénégal toll ñun dañ ñoo fal bi ñu ñëwee lii la gis ak lii ak lii ak lii kasi nekk nag am nga sa waay kii sa copain la kii sa gaay la kii sa grand la kii moo lay fayal imprimerie sa journal génn kii moo kii mais y a l'intérêt du pays sëñ bi dëkk bi ne bu tegul dëkk bi su tegul yow sa grand bi laa jëndal papier du ko tal mm-hmm. kon aujourd'hui il faut que nag ñu dem ak xel les le débat est à tel niveau mm-hmm. tubaab yi il refuse notre souveraineté alors qu'il nous la faut mm-hmm. kon nañu àndandoo mën nañu sax bañ a d'accord ci méthode ci liggéey bi ngeen bañ ànd ak ñun mais Sénégal nañ ci ànd. surtout bu ci waaw nañ ci ànd léegi nag nañ ci ànd boobu. Ah. état am na doole boo xam ne ka mu bëgg a waxal dina wax ak yow. Mm-hmm. ka munti kaa mënti doon ak foo mënti ne xanaa mu bañ. donc que l'État fasse ce mm-hmm. cet effort-là et surtout que l'État du Sénégal aide davantage la presse sénégalaise. mu am. une assiette économique différente de bi mu sa am depuis lustre presse mooy defar dëkk une part une part et cette presse là su fekkee ni que nattul sa responsabilité si élevée mais li moo yàq dafa bëri xam nga tey jii nii la majeure partie des publications qui paraissent on a l'impression que man le lendemain de du discours du président de la République mm -hmm. su doon le président Macky Sall le lendemain journaux yëpp Macky ngay gis. Mm-hmm. contexte bi ñu nekkoon. Mm-hmm. la preuve la dernière le, dernier entretien bi mu accordé presse sénégalaise où le DG de la RTS coordonné faisait ce que Fatou Sakho faisait c'est extraordinaire. Mm-hmm. avec le DG du Soleil Yakham Mbaye. Racine Talla Yakham ñoom ñu toog. c'était autre chose c'était plus plus de la com que de l'info Avec Fat Saro, c'était de l'info. Ouais. Quand bien le président communique, mais il donnait de l'info. Et Fatou était là à réguler, à coordonner. directeur général pour le faire. Mmh. Ça, c'est une rupture, c'est intéressant, c'est tentant. On n'en a pas parlé. Ben, la presse sénégalaise, le lendemain de cela, ou le surlendemain, qu'est-ce qu'on a vu? liggéeyu service de communication état bi la. Mm-hmm. bu leen leen xaar yéen leen di fekki ne leen gars yi hey yeewu leen. Mm-hmm. yeewu leen dëkk baa ngi dox de. Mm-hmm. Sénégalais yi ànduñoo ak yéen de. gars yi leen de. seen journaux yi jarul de dara yoru leen ko. <laughs> ñii di leen di financé nii dans un mois deux mois bu leen woowee ci rapport yi dootuñu am lu leen jox ah. Ah, ah. muus leen tuuti. nekk leen ay nit. bu ko defee contact am. parce que am na si ñoo xam ne dañoo am kersa. waaw. Ousmane Sonko deful. dañoo rëy quoi. waaw Ousmane Sonko deful. Hmm. yow nga jël journal ñetti at ne moo def. Hmm. ba juge moom ñëw daal ne noo deful. Hmm. mais kii quoi yow léegi amatuloo bind. yàlla nattu la waa ji falu. léegi nooy def kooku du mun ñëw ci yéen a. jëli leen que jëli leen bala moo dig. leen ko rek ci njaboot gi la bokk. Mhm. ne ko nag wuy ma liggéeyal réew mi. Euh, pa Assane je pense que vous touchez un point fa eh, yaa ngi laal fu am solo lool. Mhm. et conseil boobu je pense que les service de communication état dégg nañu ko bu baax. Mhm. te dañu ko dinañu ko jafe xam naa ni sauf que euh, bemool bi ma ciy def rek mooy ki nga xam ne. il est animé d'une bonne volonté d'une euh, bonne foi. dina neex kooku neex na waxal. et d'ailleurs sax xol bi bañ doo et d'ailleurs sax euh, monsieur Boku mu ngi leen di remercier yow Pa Assane monsieur Bathie ainsi que d'autres journalistes Fatima ainsi que d'autres ñoo mm-hmm. xamante ni si vraiment depuis le début du projet waxuñu si lu ñaaw defuñu ko ci ñu ngi wax parce que dañu xam ne projet bi dëgg la. projet bi Sénégal yi ñoo ko gëmal seen bopp ñu defendre ko avant que projet bi di jot ci nguur gi projet bi jot ci nguur gi ñu continuer di ko défendre ba même bu ko défendre sax ils sont mais dëgg gi lañu gis di wax. dëgg neutre ma eh, eh, ki ki ki yow. Masek Masek waaw. baal ma rek moi je suis pas neutre. <laughs> Ah xam nga damay damay expliquer benn affaire. Mhm. je ne suis pas un partisan du Pastef. Mhm. je suis un sénégalais bu dëkk biir Sénégal di xool. Mhm. yàlla may na nu mën a xalaat. nguur nekk fi. xeex benn opposition départ def traque des biens mal acquis jàpp Karim Meïssa Wade man ma bokkoon ci ñi doon wax ne la dernière émission que j'ai faite sur Walfadjri une semaine avant élection wu 2012 rajo Walf mais dama ne amul Karim Meïssa Wade amul Ablaye Wade amul kenn reddition des comptes ñépp lay laal kaka fi def rek moom moo la lool mais bi ñu nee téye nañu Karim on s'attend à ce que ñu leer bi ñu demee ba amuñu preuve génnewuñ ko def naa deful même bu defoon te amu leen ba leen ko mu dem. c'est ça la justice. j'ai écrit nanu ko bàyyi mu dem. deux semaines après Aïssata Tall Sall bii sanu yaay bii ne Karim Wade dañ ko war a bàyyi. comme amuñu preuve. Mm-hmm. au même moment sanu yaay bii ñuy bañ tey ñoom waa APR Aminata Touré nekk ministre de la justice bëgg a continuer la traque. Mm-hmm. ou la traque. Mm-hmm. Macky Sall arrêté affaire bi wàcc ka bañ affaire bi continuer foofu la le président Macky Sall faussé lépp après lan moo xew transhumance 24 yi ñu bàyyi leen mhm. nous on s'est dit injuste mhm. waa léegi nga def loolu Karim tourné beneen leader bu doon feeñ tudd Khalifa Abacar Sall nga xeex ka injustement bloqué emprunt obligataire am yàq ay projet am foqati ko jaay ko doole nangu immunité tout que tu veux jiiñ ko lu faux c'est faux ce qu'ils lui ont dit mm-hmm. Mm-hmm. après nga xeex ko waaw léegi yàlla nattu la nag mm-hmm. koo xam ne yow mosoo ko imaginer ci àdduna parce que Dieu juste yow yaa xam nga yàlla yow yaa ñëw di effa mu teg ngay effacé nga effacé léegi mu indi la loo xam doo ko mën effacé te boo ci jàlloon amoon amaana mu effacé la yow da nga am chance sax ba jàlloo ci léegi moom mu indil la daj dëbb c'est-à-dire que ah indil na la kulaat të léegi kooku tëla yéeg nga wàcc nga saraxe nga rey nga def nga lu ne parce que yàlla moo moo dee programmé Dieu avait programmé qu'en 2024 fii la toog nii di wax ne diw mooy président du Sénégal diw mooy premier ministre diw Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la du Sénégal euh, Ousmane Sonko premier ministre du du Sénégal du gouvernement du Sénégal ainsi de suite soo ko mënut a nangu gëmoo yàlla léegi nag man looloo tax man la je suis pas neutre damaa nangu loolu en termes de constatation de fait ne lii lii moo des réalité bi ma fonctionner cette réalité là si je vois des failles je le dis si je vois quelque chose de contributeur je le dis su fekkee ni mën nañu alerter ñu ne ah attention par exemple je vais exemple il y a un vieux qui s'appelle Momar Gueye mhm. c'est l'initiateur du train express régional il a fait 40 ans à Alstom moom moo jël projet bi jox ko Abdou Ndéné Sall. au temps de Wade pour Ablaye Wade. ah parce que nguuru Macky Sall dañoo wax naan Macky Sall moo initiateur c'est pas vrai. Mm-hmm. le projet c'est Abdou Momar Gueye Abdou Ndéné Sall. Mm-hmm. Ablaye Wade jot ci jotu kaa def. le président Macky est venu la première chose qu'ils ont faite mooy écarter l'initiateur Mhm. kooku dafa jékki-jékki nee na moom ci télé bi la toog jékki-jékki gis ñuy wax waxi TER. Mhm. liy wax son projet moom. Mhm. génne ko ci. tey il faut que nguur bu bees bi woo ko. parce que quand El Malick parle de renégociation ce qui est super de tout ce qui est lié au terres. il faut ngeen xam l'initiateur moom min am amoon xalaat bi. parce que Momar Gueye c'est quelqu'un c'est un vieux de soixante quinze ans. ok te soixante mag. yàlla na ko fi yàlla yàggal. amiin 75 ans il était aux ICS. muy dénoncé ñu xeex a fa génn ko fa mu dem ci tubaab yi tubaab yi nag téye ndax xam-xam. quand vous avez un Sénégalais qui a travaillé sur Ariane spatiale. Mhm. c'est pas n'importe qui. donc ku mel noonu boo ko amee da nga kaa te y a tellement de Sénégalais comme ça. <laughs> <laughs> et ce vieux là tey je souhaite que régime bu bees bi woo ko. Mhm. mu wax leen ne leen moom. le budget bi ñu nee moom la ñu defaree terre bi de mille milliards ak lu teg ak nangam nangam sur sur trente six ou trente sept kilomètres moom il a avait prévu cent cinquante huit milliards pour tout le réseau ferroviaire c'était ça l'idée waaw léegi lu mel noonu su amee moi qui suis quelqu'un qui constate dama informé mhm. moo tax man la je suis pas neutre alhamdulillah l'hypocrisie c'est de dire je suis neutre te neutre yi gën a agressif sax léegi. <laughs> waaw man mi man mi dama la ciy dollil. gis nga neutre amul ñun ñun non neutre amul ñii dañoo ragal a jël seen responsabilité. <laughs> dégg naa sax benn waay ah, keroog benn waay di ma interpellé naan ma woy yow booy saaga waa Pastef fii nga ragal quoi mën na ko sëñ bi. <laughs> non non may ma ma ne ko sëñ bi yow yow est-ce que ça va. ça ne va pas. non non non booy je te comprends ma ne ko waaye yow ragal saaga. Pastef waa Pastef ñeme ay yetti Macky Sall <laughs> ak ay paaka ma kem ay pistolet ma kem ak leneen ak leneen xanaa yow ça va pas vraiment hmm. mais comme on est dans un pays de larbinisme et d'hypocrisie à un moment donné ka si nekk selon sa position mais dëgg dëgg la nguur bi fi nekkoon newuñu woon ci dëgg hmm. ñu leen doon xeex falu tey ñoo ne si dëgg hmm. looloo lay dëgg ba keroog nag ñuy gis leen te yàlla bu ñu gis lu lu teg lu ñu wax xam nga euh, neutre nee la neutre Mm-hmm. amul fii Sénégal. Mm-hmm. ñii dañoo manque de courage ñii waaba jiiba li kii doon wax eh. nga xam ne dañuy neutre neutre lu. Mm-hmm. waaye bu ñu nekkee ci suuf am beneen taxawaay. <laughs> gis nga li mu wax ci Karim Wade. man dama xeex ci Karim Wade ba dugg boîte vocale. Macky Sall biñ koy bi bi mu nekkee assemblée ak ni ñu doon teg ci kawam xeex naa ci ba dugg boîte vocale cest à ñun. bu fekkoon ne dañoo Macky Sall on l'a défendu 2008 ça bopp bi moo falu ba ba 2016 moi c'est à partir de 2016 que je me suis dit kii yàq na liggéey bi am naa benn euh, beau frère boo xam ne xam nga lu may tooñee mhm. ne ma yow da ngay xeexal nguur nag waaye bu ñëwee rek romb bala fi dem sa dem quoi parce que gis na ma ci combat yooyu mais en fait quand je le fais mhm. xaaruma ci dara c'est pour le principe xaaruma ci dara gis nga man sama saak bu sama saak au doobee mhm. moom laay gàddu rek tegu ci télé bi lu ma yàlla jox ma dugal day fièrement sama téléphone bañ naa ko ba bu may wuyu duma xool numéro bi. des fois ma ne kooku nit sax mer ba ne ma yow ko yoroo sama numéro parce que xooluma numéro bi.